maa ngi gërëm journaliste yi ni ma leen ko waxe woon dañ doon xaar résultat provisoire yi jóge ci commission départementale de recensement des vote yi nekk ci réew mi pour yëkkati kàddu jëme ko ci askan wi ginnaaw bu ma leen nuyoo sant leen li may njëkk a mettitlu mooy démocratie Sénégal nga xam ni ñun ñëpp moo ñu mag ay génération yu dul jeex xeex nañu ci indi nañu ci ay amélioration ay siècle même ba français yi dee def seen révolution 1789 Sénégal yónnee woon na fa ay doomam ñuy déposé seeni cahier de doléance donc muy démocratie bu yàgg ma ne démocratie boobu xotti nañu ormaam ci ni njiitu réew mi doxale ci référendum bi ñu génn démocratie boo xam ni àdduna bi yépp dañu ko naw ñu fexe ba ñu bari ci àddina bi di ñaawlu doxalinu njiitu réew mi bu yemoon rekk ci bañ a sàmmoonteeg kàddoom dana doy sëkk ñaawteef wante daf cee yokk ay jëfin yu bari bu ci nekk gëna ñaaw sa moroom bi mu ci njëkka indi mooy lu toll ni constitution nga xam ni mooy ndayu sartu réew mi yépp luwaa bu am boo juboowul ak constitution walla dëppoowuloo ak constitution doo mëna a baax lu toll noonu nga xam ni mooy contrat bi askan wi di wax ne ñun ci lii lañu tënku nga yëkkati lu tol noonu waxtaanuloo ci ak sa peuple waxtaanuloo ci ak opposition waxtaanuloo ci ak société civile nga ne danga nga leen a bëgg a bett ci lu matul weer nga bëgg a organiser référendum loolu ñun ñépp ñoo ko bokkandoo ñaawlu ñaareel bi mu indi ndóol gu metti ci senegaal àddina bi ñu wax ni ñaar fukki réew yi ak juróom yi gëna a ndóol ci senegaal lañu nekk mu bëgg a ci coono yooyu askan wi nekke bëgg leen a jënd jëmale leen ci fi ko neex ku nekk gis na ci référendum bi li ñu tuur ci ay xaalis ci ay ceeb ci ay xeetu ger yu mu mënti doon ci senegal président de la république tëj bureau wax ay ministre tëj leen bureau yi ay directeur am tëj leen bureau yi xëppu leen yéen ñëpp ci biir réew mi ak seeni maleti xaalis ku ngeen gis ger leen wante nangeen fexe rek ba ma am ndam loolu nekk ñaawteef bu réeréeré wante yemul ci loolu parce que bi nga xamee ni dugg na ci référendum bi li ñu doon xaar mooy mu fexe ba média yi nga xam ni alalu askan wi la ñu koy liggéeyee moom la koy euh, moom la ñu leen di fay lu mel ni RTS yemale ñëpp bu waxee ni ñii lii mooy seen xalaat mu mën a wax ni ñii lii mooy seen xalaat wante loolu amu ci mu jël RTS nga xam ni moom ak njabootam rekk ak ñi ànd ak moom la ñuy feeñal seeni kàddu te alalu sénégalais yépp moo ciy dem muy bu yemoon ci loolu ñu mën a wax wante mu jël alal ju bari jël ay journaliste ay patron de presse ger leen pour tënk leen ci li ko neex ñu koy waxal li ko neex di ŋàññ ay opposants ñi nga xam ni seen ngor mayu leen ñu nangu loolu mu ne da leen di bundu xataal ñun ñëpp gis nañu ci bisu référendum bi ay alkaati dem Walfadjri ne dañu koy tëj loolu nekk doxalin boo xam ni bii bu ñaawa ñaaw la leneen li mu ci ci doxalin yu ñaaw yi mooy corruption bi maanaam guerre gi ak chantage bi mu jël ay maire ay notable ay imam ay kilifa ñoom ñépp di leen woo ci biroom yow boo deful li ma bëgg bu ëllëgee état bi dootul def ci sa dëkk dara wax na ko ay maire ca Sokone wax na ko ay maire ca Mbacké wax na ko ay maire Casamance fu mu dem rek ba fii ci Thiès maireu Xombol dem na maireu Pout dem na maireu euh, Kayar dem na maireu Kër Moussa dem na ñoom ñëpp ci ay ger jubluwu ci lenn lu dul euh, ñëw leen ànd ak man alors que président de la république li nga yore alalu réew mi la fu citoyen nekk daf cee am wàll daf cee am cër leneen li nga xam ni moom la ñuy ñaawlu itam mooy euh, citoyen yi nga xam ni seeni kart électeur dañu ko téye joxuñu leen ko ba noppi bëgg a def benn njublang ne léegi dañuy voter ci récépissé comme jamonoy ordonnance ya pour bëgg faa jaare Euh, def lu leen lu leen neex ci référendum yi mais loolu yëpp bi mu ko boolee ba pare bi senegal sosoo ba léegi ci référendum réew mi day booloo nangu référendum bi ca Senghor la tàmbalee 1963 99 pour cent de oui 1970 99 pour cent de oui Ablaye Wade mi ko mujjee def 2001 quatre-vingt-quatorze virgule cinq pour cent de oui moom Macky Sall mu ñëw xaaj réew mi ñaari xaaj ñii oui ñii non ñetti électeurs yoo jël ñaar ya ne ñoom duñ sax dem wuy ji ko duñu voté ji ñi voté boo seetee lim bi diggante bi ñu ko falee ak ñeenti at yi presque ñaar yoo ci jël kenn ka war na ko ginnaaw donc loolu mooy échec bi gën a mag ci référendum bi du question politique du question diw buy xeex diw question wu njiitu réew buy laaj peuple am ne ko sart bi ñu bokk tënk ñun ñëpp lan nga ci xam dafa waroon a fexe ba ñëpp daje waxtaan ba ne liikat ñun ñëpp nangu nañ cee tënku donc constitution bii mu votelu moom même bu légalee même bu tegee ay sandarma ki alkaati ci ginnaaw sénégalais bu nekk constitution bi moom légitimul ndax askan wi booloowul ci nangu ko puisque constitution mooy contrat de base bu société donc mën naa xam fu mu jëm ak constitution mais incha allah bu yàlla defee jàmm ba ñu ñëw lii may wax di ko ko ŋàññe danañu ko saafara doxale doxalin buy may sénégalais bu nekk boo yëree constitution bi d'abord da nga xam la ca nekk ensuite dana la biir ni nangu ngaa tënku ci loolu bu boobaa du soxla gendarme ak alkaati ci sa ginnaaw pour nga jëfe sartu réew mi mais nii mu ko doxale yow kay lii mooy li baax ci yow kaay ma neexal la pour nga nangu ko kaay ma ger la pour nga nangu ko lu ko fi jar jaru ko mais wër Sénégal wër àddina bi ak ay maletu xaalis ay mallette yu dul jeex di distribuer yow ci sa bopp en tant que président de la république pour ger nit ñi pour ñu wax la wuy alors que nee nga ñoom ngay ñoom ngay liggéeyal loolu lu ñu ñaawlu la leneen li nga xam ni lii dama ne woon sax duma ci wax wante fokk euh, nit ñi leerlu ko waxoon naa Macky Sall mënul waxoon naa sàmmoontewul ak kàddoom te loolu du wàllu gor mais léegi nag dafa am leneen lum ci bëgg dool dool dolli mooy maay buur maay buumi ku ma contre na dee ku ma contre rek rey leen ci élection yii dafa def plan joxe list joxe instruction ne na ngeen fexe ba xalifa Sall meeru Ndakaaru ca bureau ba muy wotee ca Grand Yoff bu mu fa am dara lu mu laaj def leen ko jënd leen lu ngeen man rek voilà Idrissa Seck nangam nangam dem ca bureau de vote ba ca mais coono boobu yëpp pour lan puisque xajoowul xajoowul contestation xajoowul opposition xajoowul wax ko xalaat bu woroo ak bosam te loolu njiit boo xamee ni noonu ngay doxale fa ngay mujj ala kulli alin mooy nërmeelu rekk gis ngeen bi mu ñëwee dem grand théâtre ne day takk ak ngembam ak ay buxaabaam ak ne day làmb day moom boppam la yenu dóor ci suuf dóor ci suuf parce que président de la république warul warul defe noonu ay kilifa yu bari ah Pape ca dakaar malik Gakou ca Guédiawaye Euh, Aïssata Tall Sall ca podoor Ablaye Balde ca Ziguinchor euh, Oumar Sarr ca Dagana ñooñu ñëpp daal bu ñu am dara ak ñeneen ak ñeneen ñu dul ñu dul jeex loolu yëpp euh, fekki ngeen ko mais loolu du jëm fenn parce que bu gisee ni moom ci ñeenti at ñaar ñu àndoon ak moom kenn ka dëpp na bala moo doxaat at la muy dese dana néew lool donc loolu aussi war na ci bàyyi xel te itam nag ànd ak i mag ormal leen baax na mais na xool tuuti li ko wër na xool ñi mu jamonoonteel ni muy jëflante ak ñoom te ki koy remplacer ci ñooñu la ne incha allah ki koy remplacer ëllëg puisque ala kulli alin dana am yàlla moom xam na kan la ñun xamuñu ko mais en tout cas war na bàyyi xel ci doxalinam war a war a dal tuuti war a ànd ak euh, xelam war a ànd ak sagoom xam ne dooley état kenn du ko xeexe li ñu ciy séentu mooy yërmande jëmale jaam ñi doxal dëgg jub di jubal loolu lañu sant ku nekk ci ci pouvoir parce que bu seetee histoire xëy na nag culture yaatuwul dégg naa ni ci ci ci ay yeneen daal la jublu mais bu bu bu amoon culture dana xool histoire dina jàng ne amul benn nguur boo xam ni ci doole lay wéeru bu mu jëm baax amul donc il faut qu'il fasse très attention may wax ne nag mënuma jeexal te santuma gërëm ci sama biir xol ni ko Thiès di waxee waa Thiès xam naa ne ca dëgg-dëgg fii ngeen ma loolu moom ci biir département bi loolu moom vraiment je pense que kenn waranteetu ko may dalal seen xel ci lenn du ngeen ma dégg mukk ci téesante procès verbal bi sàcc nañ ko def nañu lii non loolu vraiment du sujet du sujet référendum bi sujet référendum bi leneen la moo tax li ma ñaan sax waa front bi ñi nga xam ni ñoo doon xalaata euh, dem tribunal ak yéeg ak wàcc dama ne leen jaru ko jaru ko xeexuñoo kenn réew mi daal xam na ne ñaari sénégalais yoo jël benn ba nee na ko déedéet au minimum même bu fekkente ne li mu def yëpp def na ko di leen wax ne am naa yéene incha allah ci fan yii di ñëw ma ñëw ci kër yi ci quartier bu nekk ci biir dëkk bi pour wax leen sama cofeel wax leen sama jaajëf waxleen kontaan gi ma kontaan ci yéen wax leen ne incha allah na seen xel dal ñoo ngi dox am fu ñu jëm bu ca yàlla eggee kenn mënula tere ñu egg incha te te allah na ngeen xam ne daal bég naa lool ci yéen comme ni ma bëggee ci peuple sénégalais bi yëpp ak ci sénégalais yi nekk ci diaspora bi yëpp di sargal ñëpp di sant ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullah de défendre vous savez regardez quand il y ou quand il y ou même quand l'équipe nationale joue les populations se mobilisent spontanément pour participer. Donc, le fait que le peuple se détourne du projet signifie que le peuple ne se sent pas concerné. ñoru leen safu leen gisuñu ci seen bopp ñu ba ko fa fulla nag lañu am waa Sénégal li nga xam ni lii ñoru leen gisuñu ci seen bopp du ñu ci ray seen bopp mais le peuple sénégalais tayelul yaafuusul ñàkkul fayda donc li nga wax il appartient à la classe politique aux dirigeants de faire en sorte que le peuple se sente concerné par les projets qu'il propose Ça, c'est tout à fait la question fondamentale du moment. Et c'est vrai pour nous tous, euh, pour toutes les classes dirigeantes. Vous savez, le, le Chateaubriand, je crois c'est Chateaubriand qui l'a écrit, euh, il dit que la classe dirigeante connaît trois âges. Hein? L'âge euh, des, des, privilèges euh, qui ne sont euh, qui ne sont justifiées que par leur engagement à s'occuper de leur peuple. Mais dès qu'ils se détournent de ça pour se concentrer sur leurs privilèges personnels, le peuple s'en détourne et parfois les fait tomber. Vous savez, la première grosse chute d'un grand empire, c'est l'Empire romain en 410, lorsque les dirigeants ont oublié de s'occuper du peuple et euh, s'occuper de leurs privilèges. Le peuple a réagi, tout simplement. Vous savez, c'est partout, c'est partout pareil. Je pense que vous avez là touché le cœur du sujet et le cœur du débat. Merci pour ça.